tey nag ñu bëggoon a wax ci sëy le mariage lan mooy sëy lu tax yàlla def sëy góor jigéen jigéen ñi jàppee ko nu leen neex góor ñi jàppee ko leen neex ñu koy dundee xamuñu réellement fond bi fond bi lan moo nekk ci biir jigéen lan mooy comportement wam ci biir néegu sëy jigéen nga xam ne exemple la jigéen nga xam ne dafa war a joxe eh, conseil war yedd wala ëmb wala uuf doon mat yaay daal doon yaay ci biir kër doon royukaay ci biir kër doon lu nekk ñu jigéen yoo xam ne yenn saay dañ ciy gis loolu yépp du nekk ci ñoom mu jaaxal ñu loor góor ñi tamit di wone ne ñoom buur lañ chef lañ kilifteef te gi ñuy wax duñ ko mat ko door mu doy waar li kenn xamul fi ngay féetee mu jaxase réew mu jaxase dëkk bi léegi nañu ànd ceeg suñu benn maman suñu benn sëriñ foofu ci Atlanta ñu di leen laaj seen xalaat daal ci loolu ndax mbir mi daal jéggi na dayoo jéggi waaw bisimilah. waaw sëy moom dafa nekk mbir moo xamante ne. Uh-huh. Um, buñ koy def dañ koy uh, bu ñuy bu takk ñaar nit dañ naan until death do you apart mooy maanaam uh-huh. ba kenn di suul moroom loolu la ñuy signé uh-huh. nag uh, loolu lañ ci loolu lañ ci jub loolu lañ ci jublu moo tax mhm. noonu lañ noonu lañ koy tuddee moo tax ñuy laaj nit ki ndaxte danaa dëgg bëgg a sëy kii ba keroog euh, kenn du suul moromam léegi nag loolu mhm. euh, après nag lu ci mën a ñëw tamit dañu war a xam ne que euh, mhm. loolu ndogal mooy mooy ndogal bi ci am mais tamit bu sëy amee li li mu li mu li mu li nga xam mënu am ci sëy mooy séparation mooy maanaam commitment la Mm-hmm. bu ñu xësee ba nekk rek dafa war a nekk ba parce que boo foo nee eh, da ngeen di sëy pour euh, euh, euh, ba kër kenn di suul moroom ça veut dire que lépp loo leen di def rek dafa war a nekk benn mais sëy léegi yi da ngay gis ne que total séparation la mooy maanaam mm-hmm. kii mi ngi defar fii ay mbiram ci suuf kee di def ay mbiram ci suuf loolu du commitment te loolu dañuy défi purpose bi mm-hmm. dañuy défi purpose bi loolu moom taxul ñi kenn kenn di sëy lol mom bu fekkee nit moko tax sey mom mën na maanaam mën na dem yoon euh, du dox bu wala kenn ki di tabax pour ñaar kenen ki di tabax pour bopam kese lol tamit du dox mukk ilaa yawmi din so loolu du du lo xamantene faratal nañ ko du luñ santane waaw lol la ci gis waa am na solo am na solo waaye dañoo gis ne góor ñi léegi dañ ne kilifteef may sa borom kër may sa kilifa léegi kilifteef googu ñuy woote dafa dem ba léegi dañ ciy abusé wu maanaam dañ ciy def loo xam ne diine santaane wu ko lislaam santaane wu ko parce que jigéen kat ku ko yor war koo muñe ku ko yor war koo sargal ku ko yor war koo sagal mais da gis ne dañuy dem ba benn instant yàlla yemale wut wërsëg tolloo wut ku jigéen ki amaana na ëppale na ko wërsëg léegi dañuy gis seen bopp daal day nii luñ ko luñ ko mën a tuddee daal wujjee lañ koy mën a tuddee ndax défini ñuy def du doon défini yoo xam ne yow fi mu ni am na benn foo ko mën a localiser daal tuddee ko benn tur noonu rek lañ koy dañuy wujjee ak xale bu jigéen di ko teg charte yoo xam ne dootu ko àttanate waaw côté côté boobu moom mooy nit ki bu fekkee ne ay kilifaam ah, uh-huh. ah, ay ndeyam ak baayam dañoo ñëw may la ko jigéen Euh, mhm. dañ leen na kii dañ la kaa may mooy maanaam léegi suur ba suur mhm. ba la ko mayee léegi jog kilifteef bi jóge na ci loxo ndeyam ak baayam léegi ñu jox la ko yow mais dañ la ko jox pour nga nekk kilifam jiite ko waaw loolu moom dëgg la ji góor moom moo war a jiite waaw góor moom moom moo jiite loolu lañ santaane léegi nag jigéen dafa war a nekk à côté bon bu fekkee ne da ne jigéen dañ ko jàppee mhm. comme jigéen mii moo war a nekk sa ginnaaw Mm-hmm. te léegi dafay d dafay indi ñu bëri duñ ko comprendre moo tax ñu bëri di di di di sawar a wax ne mu nekk sa wet mooy maanaam mu ñëw mottali la mais boo ko jàppee ne que yow dana la ko am may rek nga dexe ganaal ne ok lii comme nga jàppee ko comme benn euh, jouet kado de bu boobaa nag mën nga ko abuser utiliser ko comme jaam Euh, te boo ko utilisé comme jaam rek après léegi tam loolu day jur ay day jur jàngoro parce que dootul nekkati loo xamante ne euh, dootoo ko jàppatee si nawle daal mais boo ko jàppee ne comme nawle euh, mhm. parce que yonent bi sallallahu alayhi wa yàgg nañ jox exemple moom gis nañ ko doy nañ mhm. exemple ni mu daan doxal doxal rek ay ay ay soxnaam soo gis nañ ko donc loolu moom guide la woon encore tamit repère la soo mais nag ñun léegi niñ koy doxalee moom beneen mbir la mooy mbirum slavery la te mais nag yu ci ëpp lu ci tàmbali rek li ñuy wax naan sëy la ko tas ñi nuy woon njëlbeen bi kenn nuyu kenn fay ko loo ci waaw boo ñëwee nag ci biir sëy bi ah, en tant que jigéen nga ne léegi yow da da nga war a joxe cent pour cent mais nga bëgg a joxe deux cent pour cent yoo amul bu boobaa tamit nag di nga di nga indi loo xam di nga indi musiba. waaw te te nag bis boo ñëwee ci sëy góor dañ te sëy dañ ne woon góor mooy dem di indi jigéen di toppatoo xale yi toppatoo kër gi léegi bu demee ba jamono changé nag bañ na léegi nag ba nga ne sa jabar da dañu war def fifty fifty maanaam damay indi genn wàll nga indi genn wàll kon dafa war a yow tam danga war a indi genn wàll mais bu fekkee ne jigéen ji dafa nangu ne moom dafa bëgg a dem liggéey ji pour def fifteem ba pare ñëw na léegi nag daf ci war a teg wàllu jigéen bu boobaa mi ngi tàmbali loo xamante ne fi fi jëm ñoom ñaar du am ndox donc léegi lu ci tàmbali rek euh, bis bu demee bis bu la nee jigéen bu ma nee jigéen su ma nee góor ne da ngay indi fifty participer ci kër gi fifty ma indi 50 bu boba tamen man tam bu ménage jotee wala ah, raxas jot ma ko tam say 50 parce que euh, bu dul loolu rek euh, musiba day am waaw ah, maanaam daal maanaam daal ci gàttal moy buñu côté finance bi dal suñu defé 50 50 côté euh, li ci biir kër gi tamit liggéey bi day doon tamit daal nañ doon na nengko fifty lépp daal nañ ko nañ ko nañ ko waaw mooy parce que bu la dafa indi jigéen toppatoo mhm. donc ça veut dire que góor gi dafa war a indi mais bis boo demee ba nga xam da nga ko imposé nag nag léegi fitti fitti la dañ ko bokk kon bu boobaa tamit yéen tamit na ngeen bokk ménage bi mais nag boo buggee ne la nga dem jëli sa fitti nga daal di ñëw ne léegi ba pare yow da nga ko jox cent pour cent bu boobaa di nga jéem loo xamante ne doo leen sori parce que munoo munoo dem liggéey full time pour indi surtout bi mm-hmm. après nga war a def ménage bi ci kër gi ba pare nga war a euh, dëkkal sa sa borom kër. Mm-hmm. bu boobaa moom di nga dugg ci loo xamante ne doo leen doo leen sori yooyu nag muy indi jaxasoo yu bëri moom mu indi yoo xamante ne du mën a nekk du mën a continuer parce que da ngay commencé loo xam mënul continuer te yooyu nag mooy tas sëy yi ci ëpp. dëgg la dëgg kon léegi waaw jërëjëf euh, teelu nañ wax ji léegi ñu déglu suñu mama mom mama waaw maa ngi leen di déglu rafet na maa yaa ngi ci mm-hmm. waaw loolu moom rafet na dëgg la ndax ndaxte mm-hmm. suñu suñu su li ñu gaañ li ñu gën a suñu réew mooy dañoo jaxase diine ak euh, cosaan mm-hmm. dañ ngay bëgg ñu ne la soxna maam jaara nga war a doon soxna maam jaar bu ñu nuppi tourné war a dem nekk directrice takk sa ndig dem parce que jamono ji ñu toll léegi góor dafay mhm. nee nañ góor baax na jigéen baax na bu mhm. ngeen xoolee tey jii nii li tax kon euh, ni ko sëñ bi waxee rek li gën a indi coono si si mariage yi nga xam ne moo nekk bitim réew ñàkk xam lan mooy mariage si la bokk mhm. dëgg la suñu borom bi si turam lañ ko lañ ko takkee waaye moom moo bind sa yi nga xam ne ñoo war a nekk sa aras Mm-hmm. loolu moom yéen dafa nekk loo xam ne du nit moo ko mën a calculer mais moom mooy calculer mooy seet li ko neex mu dogal ko ni ko neexee noonu la koy dogale bañ bañ nangu mm-hmm. nangu nangu bañ loo ko mën tuddee rek ni ko bindee noonu lay demee soo ñàkk mm-hmm. yërmande bi nag dafa nekk loo xam ne moo tax tey jii lu bëri jaxasoo ndaxte bu ngeen xoolee jigéen ñi nekk fii nii ay femme battante lañ dañuy dem dañuy ñëw góor ñi waxi noppi ñoom ñëpp ñu ngi def mais mbir mi mooy ne pour kan la ñuy defal pour kan mhm. la defal pour seeni njaboot njaboot gi ci boppam la ñuy pour ëllëg ndax ñoom ñooy doon mhm. taxawaay seen takandeer ëllëg mhm. lépp loo xam ne nit yaa ngi ko fiy ji tey sa njaboot moo ko war a déqi waroo ji tey nga ne da ngay lekk tey loolu amul soo nag li ngay waaw li ngay saxal yow doo ko ji deqi sa njaboot moo koy deqi soo da ngay def li nga xam ne moo gën a rafet ni mu gën a rafetee ngeen ko li ngeen am ngeen defee ko ni ngeen war boo toogee mu raxas ndab mhm. boo balee mu fobeere xam nga da ngay xool mhm. tey Sénégal góor ñu mhm. bëri xamuñu sax bale bi fala la nekkee seen biir kër sax fan la waañ bi nekkee ñoom daal togg ñor na taxawaalu ñu bu ñu ñëwee takk yàq toog lekk jigéen ñi mm-hmm. lañuy naan toog leen defal leen déedéet mais buñ ñëwee bitim réew lu ñuy def ñoo ngi dugg si waañ bi ñoo ngi togg te góor ñi fi nekk ñoo dàq togg ko jigéen ñi sax parce que mm-hmm. xam nañ ne noonu la war a demee nga gis mm-hmm. bu ñu ñëwee Sénégal di jàppale seen soxna yi si waañ yi nga gis seen goro yi commencé am défense si mbir mi mais du noonu ko war a jàngal parce que ki ñu gën ñun ñëpp ba wan ñu yoon mi moom da ko daan ay soxnaam mu won ñu yoon bi ne nii la da ngay jug da ngay jàppale sa soxna ci biir kër mm-hmm. mais loolu danga ko war a tàggat ci xale ba muy nekkee ndaw mm-hmm. bu nekk góor du bale góor du fobee rek góor du def li déedéet góor da koy def ndaxte dafay am mm-hmm. njëriñal boppam suba du ko tax a nekk beneen façon góor lu dul góor góor dëgg mën na mën na gérer lépp lu mu war a gérer parce que mooy boot mooy suturaal mooy mooy mooy def li ko war mm-hmm. soo ña nekk defe ne buur nga looloo tax tey jii nii lu bëri ñu sànq ko suñu suñu askan nga xam ne frustration bi mooy moo koy jur tey jii nii jigéen boo gis tey jii mi ngi nëbbu li muy def parce que danaan kii kat du jàppale si lii soo lu ma yor mu jël ko wala mu leb ko te bu ma ko laajee mu mu wax man wax bu naqari léegi séparation commencé am jigéen bi nanguwul wax li nga xam ne moo nekk ci bopp ci biiram ak jëkkëram ndaxte duñu waxtaan amuñu tuñu communication te communication mooy sëy dafa dafa nekk waaw manque de communication dafa dangereux boo xasee ba ko ñàkk ko rek c'est fini da ngeen war a nekk peer ndaxte lépp lu suñu borom bi bind daf see dafa def peer moo tax mu peere hmm. jigéen ak góor hmm. des fois di nga dem ak moom ba yoon yoon bi jeex keneen continuer yoon bi loolu suñu borom bi la neex mooy mm-hmm. defar peeram yi parce que lu nekk ak fa mu war a ñëwee la mu na mu war a ñëwee soo donc peer boobu may àndal bo mënul nekk ak moom comprendre ak tend ak moom am am am yërmande yërmande si ñaari côté yëpp la parce que tey jii ni jigéen mën góor mën na nekk kilifa si kër tey di indi di def lépp suñu borom bi mm-hmm. jékki-jékki rek jël benn cëram si bu boobaa kan mooy jóg ku jigéen ke jeex na tàkk boo xoolee tey jii nii jigéen du mës retraité mm-hmm. du mës a retraité nga koy xam nga dem toog grand place yi spa yi ñu toog jàpp seen lees nga dem seen kër nga xool kan mooy dem uti ji dépense. dëgg la. léegi kooku noonu nga bëgg koo teg boo ñëwee yow nga bëgg koo teg coono àdduna te yow wàcce woo ko coono di ko di ko yokk coono mais frustration boobu muy indi looloo tax tey jii nii lu bari xew séparation bi du Amérique rek la am de. mais mi ngi am suñu biir dëkk tey jii dangay gis yaay boo xam ne danaan doom bu defal li bu defal li sa papa parce que léegi li defal ma man nga gis papa joo xam ne tamit day def noonu di xëcc ku nekk di xëcc sa boor mm-hmm. boo yónnee benn pour kër da ngay yónnee pour ñaar parce que da ngay yónnee paa bi fii yónnee mère bi fale pour bañ rek soo loolu noonu mi ngi mi ngi nekk loo xam ne danger la ñi ngi koy xool ñu ngi koy gis mais ñu ngi koy waxe noo xam ne dañuy maslaa ci suuf di tàpp tàppal dañoo nekk ay réew moo xam ne dañoo mën a yëfu tappale ba nga xam ne lépp lañ tappale mhm. lépp lañ tappale duñu wax dëgg li nga xam ne moom la diine santaane nanguwuñ ko wax ñoom dañuy wax ni leen arrangé bu leen arrangé wul ñu ne ah suñu aada la mhm. ba nga xam ne même tey jii nii dañuy indi différence si naan kii lii la kii lala la kii du kii parce que kii lii la kii du see mais loolu yëpp lan moo ko indi diine tegu ko fi nit a ko fi teg soo à chaque fois damay wax waaw teggeeku li la nit teg nga tegoo li la mhm. yàlla teg am jàmm mhm. soo sëy neexul neex na sax dépensé ni nga ko bëgg jëlee aada wala diine loolu rekk la mhm. dëgg la am na solo am na solo maman wax am na solo maanaam suñu teeloo say wax niñ ko déggee nii maanaam sëy bi ñu wax ne jigéen dafa war a muñ muñ la ab ngor communication bi moo ko war a mottali communication nag su manqué ci jur lu baree baree bari parce que mooy indi féewaloo bi yëpp euh, ñaan ñi ànd dañoo war di waxante ñuy xamalante tey ji da ngay fëgg góor du xamal jabaram dara nga fëgg jabar du xamal jëkkër dara muy indi réeroo bu bari bari bari ci biir néegu sëy tax ñuy def lu nekk comme ni nga ko waxee rek jigéen moom jigen du mësa retraité parce que jigen moy ëmb moy jur té bu démé ba jur doom bu jigéen dafa ñaan yalla mu dem sey bu jur doom bu góor mu ñaan yalla mu indil ko goro té bu ko indi lé goro mu toog àjja ndax ci goro ba ëmbé bu buy wasin bu yoy yépp jigen daal amul retraité machallah machallah machallah jigen macha allah ñi gàcce nga laama jigen ñi na suñu bokk jigen ñi du leen ñaan tamit yeen ñi nekk ci biir buum communication lépp waxtaan lu mu metti metti woo sa jëkkër ngeen waxtaan ci biir nekk bi nga déggal ko bàyyi ay tereem ndox ci ay ndigalam su ko defee jàmm daal di am ñu jël aada dëgg la ji ci baax ñu jël ko jariñoo ko am na yoo xam ne jarut a jël di ko jariñoo parce que daf ñuy yàqal lu baree baree baree bare jël suñu diine bis buñ ko toppee duñu réer benn benn yoon parce que lépp mu ngi ci diine lépp mu ngi ci alxuraan yàlla bindal nañu lépp tegal ñu ñun kenn ñooy fawee suñu diine fawee suñu lii bëgg a jël euh, nu mu tuddati sax. non tamit li si gën a kii mooy xam nga yabel jëkkër ak jabar dañoo war a yabante c'est normal. bi loolu yëpp. communication que boo tey bu góor kilifa ñëwee taxaw ñëw dugg si biir kër gi fa ñaaral kanam waaye bu mu génnee moo ne mi ngi doon di xaqataay lu tax mënu koo loolu yëpp communication bi la manque de communication moo tax ñoom doxaan doxaan du dox lan dox ànd la. Mm-hmm. dox ànd soo ko déggee li niin ko xamal ay jikkoom xamal ay góowam xamal ay couleuram xam lu mu bëgg xam lu mu bañ ba fuñ la fëgg ne la diw diw moo def nangam nga ne moom la wala du moom mm-hmm. mais doxaanante bi léegi dañ ko jëlee ci beneen fànn di ko def lépp na nga def maa ngi fii la te du loolu da ngeen a a doxaanante dox ànd ngeen ay jikko bala ngeen a dem ndax néegu sëykat dafa xat te fi nga yaroo ñaar fukki at wala fanweeri at nga xëy benn su jógee foofu ci beneen kër bëgg faa dund ñoom la ñu a dund yow ci jigéen ki yaa jël sa euh, nga bàyyi ko ginnaaw ñu fekk si ñoom seen jikko nga war kaa adapté te façon nit ku nekk nga fay fekk ku nekk nga koy raconté mu metti lool diis trop mais lépp ci muñ la ah, mama muñ boobu nag daa metti mama mama muñ boobu daa metti mooy ne jikko day fekk jikko bi baax nga jël ko waaye munoo tamit ñëw si kër ñu lay teg ay yoo xam ne dañuy da ngay mel ni ki jaam ju sey si déedéet noonu ñaka xam munoo tàlli ba mel ni basang ba ñu dox la ba nga ba nga doot ba nga furi ndaxte nit ki tamit da ngay mm-hmm. fonk sa bopp ah seetu mooy lool da ngay xool sa bopp ki ngay gis si seetu bi faaw nga gis li xam ne am moom xam ñàkk xam li mu waral dafa bari ñàkk xam li mu dafa bari loolu rek a tax mais daal euh, mbir mi daal xam naa dañ fii dañ koy gën a yaatal parce que mm-hmm. am na solo waxtaan bi am na solo ñu jël si ak yéen fii suñu mbokk internet waxtaan ci yéen ñu gën koo yaatal daal ndax buñ koy wax fii ba suba yëtu duñ ci pare bari na luñ ci mën a wax bari na luñ ci mën a def bari na luñ ci mën a joxe éducation wallaahi ñu ngi leen di jaajëfal ba beneen yoon incha allah jaajëf sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar jaajëf maman Yettal ñu ngi leen di nuyu naan leen jàmm jërëjëf na gars yi commentaire nag yéen la ñuy déglu ngeen woote ñu xam ku nekk sa situation parce que tamit si jàngale la bokk ndaxte jàngale lépp si la muy xam waxu waxuñu ne nga xam le nit ki di dundee nga wasaare ko ci réew mi man ni ki kii da déedéet da nga siy jàng leçon soo ñu ngi leen di woo yéen ñëpp tamit ngeen wax ñu lan la lan la ñu war a mën a defaraat suñu réew parce que jot na ñu defarwaat suñu toogaay ngir suñu njaboot gi ëllëg. jërëjëf xale yi de war nañ leen a dimbale. waaw dina de mi ngi noonu kon wasalaam.